بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk jullit yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ngi leen di dalal jàmm ci fii nga xam ne mooy keppaaru Ramadan di keppaaru weeru koor ñu daje fi tey muy suñu fukkeelu daje ak juróom benn ci suñu daje bi ñu tuddee su l'ombre du Ramadan di sant yàlla jalla wa ala moo di ne lam ñu santoon ci weer bu ñu war a woor genn wàll ga moom won nañ ko gannaaw yal na yàlla subhanahu wa taala nangul ñu ko genn wàll gi ñu sóobu yal na yàlla yombal ko ci ñun te it jeexal ko ci jàmm ak aafiya ak njëggalam ak yërmandeem mbokk jullit démb ñi ngi nekkoon ak yéen ca la nga xamee ne nii moom la jullit di war a gànnaayoo moom la jullit di war a yaakaar ci àdduna ak alaaxira te mooy ñaan borom bi subhanahu wa taala tey nag mbokk jullit ñi nga bëgg a dikk ak yéen ci waaw yan charte mooy tax nag yàlla nangu suñuy ñaan su ko defee jullit bàyyil xel ne amul benn jaamu yàlla lu dul daa am charte yu koy jiitu yéen a ma gën a xam ne julli mooy jëf bi gën a rëy bi ñuy defal suñu boroom waaye xam ngeen ne kenn ci yéen bu jógee rekk julli ca amul charte yu ko jiitu julli nga baaxul fokk waxtu wi day jot fokk day ànd ak laab fokk mu sutural awraam ak yeneen yi ca tegu loolu ci misaal rekk la ca naka noonu it mbokk jullit ci ñaan noonu la demee dafa am ay charte xamal ne charte ba ca jëkk mooy ngalawaay sa boroom bi nga koy ñaan sa xol bi set wecc ci nga yëg ne lii ngay ñaankat kenn dong nga kax man muy sa boroom jalla wa ala moom dong moo yor sa njëriñ moom dong moo yor sa lor asamaan ak suuf mboole seen amuñu ci kenn koo xamee ne nii waris naa jublu ci moom di ko yaakaar amu ci lenn lu ñu war a jublu di ko yaakaar loolu mooy njël bii nu jéego ba suñu borom yàlla wax ñu ko ci téere ci aayo yu bari ci téereem bokk na ca wa anna al masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada xam leen ne day jàkk yi yàllaa ko moom bu leen woo di ànd ak yàlla kenn li nga xamee ne yow jullit doo tabaxal jàkka di ko jagleel jibril wala muhammad wala jant wala weer mboolem jàkk yi ñu tabax dañ koo yëkkati ngir yàlla suñu borom it mu ne naka noonu ñaan yi jullit bul yëkkati mukk sa loxo wala sa xol di ko jëmale ci keneen ku dul yàlla yow mi fekkee waxtaanu démb ba dégg nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba muy wax ak ibnu abbas ne ko ida saalta fasalillah wa ida staanta fastain billah booy ñaan ñaanal yàlla kese booy dimbinikoo dimbinikool ci yàlla kese ndax mbindaafan yépp mënuñu laa jëriñ dara mbindaafan yépp mënuñu laa fegal ci lor ci dara mi ngi noonu la nga xamee ne mbokk moom mooy chartu ñaareel bi mooy ñaan nga bañ a am lenn loo xamee ni nii bakkaar la wala luy dog mbokk la di ñaan yàlla sa mbokku jullit di ñaan yàlla musiba dal kum mën a doon loolee islam bëggut loolu di ñaan nit ki xemmem addiw dey waroon naa ñàkk palaasam bii ba ma jël ko soxnaam si ba ma jël ko ala kulli xaal lépp lépp loo xam ne lu demee noonu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa la ñuy wax ne jullit day du deñ yàlla di nangu ay ñaanam fii yëg ñaanul loo xam ne day yàqu ak mbokk wala di jur bakkaar waaye fii yëg it yàkkamtiwul ñu ne ko ah yu mu yàlla yónni yàkkamti ga mooy lan mooy waa ji ne ñaan naa ñaan naa yàlla wuyuuma mu daal di bàyyi ñaan ga loolee mbokk da ngay gis ni bokk na ci loo xame ni nii day tax ba sa ñaan nga waroon a nangu te yàlla xamoon ana ci gan ñaan la koy nangoo ndax ci juróomeel ba wala juróom-ñaareel ba wala sax ñaar fukkeel ba yow nga yàkkam ci dagg ko yàlla it dagg lam la waroon a jox mbokk ñetteel ba mooy nit ki heure boo xame ni nii yaa ngi ñaan ngalawaay li ngay ñaan doon loo xame ni nii lépp aw yiw la luy jëriñ la àdduna di jëriñ àllaaxira wax nañ la sànq bokk na luy yàq ñaan nga ñaan loo xam ne nii day jur bakkaar waaye bokk na it ci ñaan li tax yàlla di ko nangu mooy la ngay ñaan nekk yiwu àdduna nekk yiwu àllaaxira suñu borom yàlla subhanahu wa taala nee na bu doonte ne dafay nangul nit ñi la nga xam ne moom la ñuy ñaan ci musiba kon àdduna tukki loole kon ñu bàyyi ko xel ci suñu kéemtalal kàttan bokk na ci loolu mbokk julit heure bi ngay ñaan sa xol bi teew sa diggante ak sa boroom mu bañ a doon ñaanug làmmiñ yonent bi alei salaatu wasalaam mu ni udu allah wa antum muqinuuna bil ijaaba واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء دعاء من قلب غافل لاهن نغين خمني دي بوغين دي نيان يالا نغلواي نيان لينكو فكني ييني ام يقين تني يالا دي دينا ما ويو تنا ام يالا دنا لا ويو بلا وقتان وي جيخ دنا لا فاتلي نكلا لا يالا ويو waye foo ñaana yàlla yàlla wuyu la waaye nag yonente ba teg ci ni xam leen ne nag yàlla du nangu ñaanu koo xam ne ab xolam dafa saggan làmmiñ bay wax waaye xol baa nga ca leneen loolu ñu bàyyi ko xel bu baax la nga xamee ni nii mooy juróomeelu charte bi mooy ngalla way li ngay ñaan na ànd ak ngay lekk loo xam ne nii lu daggan la bokk na pakk bi gën a rëy buy dal jullit ba yàlla du nangu ay ñaanam mu lekk alal ju alal ju daganul loolee jubluwuma ca la ngay togg di ko lekk waaye na doon danga koo tabaxi këram danga koo jël sax sarxa ko yaa xam waaye maadaama alal ju daganul la nga jël ko di ko jëfandikoo loolu day dox sa diggante ak la nga xam ne ni moom mooy ay ñaan imaamu muslim soloona bin hadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا أيوا ينني يالا داي دفا تي تدو نانغولو دولو تي وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين يالا داي ميغي ديغل جوليت ني لم ديغل نيغا خامني دالين يوني تي أي يونيت تماي واخ جمي واخ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم suñu borom yàlla jàkkaarloo nag yonent yi ay yéen yonent yi lekk leen lu tey ngeen jëf lu baax li ngeen di def man xam naa ko loolu muy wane ne mbokk jëf bu baax bala ko yàlla nangu day fekk ne la ngay lekk tey na ndax kat mbokk doomu aadama li nga xam ne nii mooy wërsëg ba muy jëfandikoo mooy tax mu mën a jëf doomu aadama bi tëdd benn place un mois lekkul naanul bu faatuwul it du am kàttan taxaw naan dafay ñaan looloo tax suñu borom ne yonent yi bala ngeen maa jaamu lekk leen lu dagan ba pare yonent bi alayhi salaam teg ca ne noonu it la yàlla waxee yaa ayuha allazina amanu kulu min attayi kulu min tayibaati ma razaqnaakum washkuru lillahi in kuntum iyaahu taabudun ay yéen julit ñi lekk leen ci yu tey yi ma leen wërsëgal te ngeen sant yàlla su dee da ngeen a nekk kuy bëgg a jaamu yàlla loolu muy woñe ni ki bëgg a jëm ci yàlla jaamu ko yàlla nangu jaamu ko njël bii ni mbir ba mooy ne fexe ba du lekk lu dul loo xam ne ni wóor na ne ne lii moom dagan na mu lekk ko waaye bokk na pakk bu rëy ngay nekk di dundi lu xaraam riba la carte la njuuj njaaj la bor boo fas yéene wala fay la ak yu mën a doon ba pare nag jàpp ni mën nga koo boole jaamu yàlla suñu borom yàlla dina nangul loolu mbokk léeg-léeg loolu nekkul luy am yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu waxee ak saxaaba yi aaya yooyu suñu borom wax dolli na ca benn xadis boo xam ni nee na xoolal benn waaye ngi nii mi ngi tukki tukki bu gudd gudd gudd ma nga sonn lool ba fënd lool toog nag yëkkati ay loxoom jëme ci kaw asamaan ma nga naan yaa rab yaa rab waaye fekk ni lam lekk daa xaraam la muy naan daa xaraam la muy sol daa xaraam la ko dundal lu xaraam la waaw kii moom nan la ko yàlla di wuyoo mbokk jullit ki nekk ci tukki yàlla day nangu ay ñaanam mi ngi noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na aji tukki yàlla day nangu ay ñaanam yàlla itamit ki nga xam ne dafa sonn yàlla day nangu ay ñaanam ki yëkkati ay loxoom jëme ci yàlla yàlla day nangu ay ñaanam ñoo di ci xadiis yonent bi alayhi salaam ne yàlla borom kersa la rus na jaam bi yëkkati ay loxoom jëm ci moom mu koy neenal ki nga xam ne yi dafay ñaan naan yaa rab yaa rab ay suñu boroom ay suñu boroom yàlla day nangu ñaanam waaye xoolal kii boole ne ñeent yi tax a nangu ñaan yépp waaye yonent bi alayhi salaam nee na li muy lekk lépp lu xaraam la li muy naan lépp lu xaraam la li muy sol lépp lu xaraam la kii nan la mën a ànd ak nag di ñaan yàlla di nangu ay ñaanam loolee mbokk kon di mbir boo xam ni ku ne ci ñun war na caa bàyyi xel yal na yàlla dox suñu digganteeg lépp lu xaraam ñu koy lekk wala di ko jëfandikoo mbokk la nga xamee ni nii moom mooy charte bi nga xam ne moo ci tege it mooy suñu boroom subhanahu wa taala day moom moo bind ay jaamam daa bëgg ko am fulla moo taxit mu won ñu la nga xamee ni nii ak fulla lay jëflanteeg ñun ca moo dine ne képp koo xam ne ni yow xalaatoo yàlla toppatoowoo yàlla soo demee nag ba ja jamonoy jafe-jafe nga commencé nag di ñaan yàlla ah su boobaa it yàlla moom du la faale moo tax yonent bi alayhi salaam danaan wax naan taarraf ila llahi fi raxa yarifuka fi shidda ay waay yow julit soo bëggee heure boo ñaanee yàlla ci jamonoy coono yàlla wuy la bi la dara jotagul del torxlu ci kanamu yàlla di ko ñaan ñaan googe di wane ne yow day xéewal yéeg coono yéeg yépp nga yemale xam nga ne suñu borom yàlla subhanahu wa taala lépp ci loo xam ne nekk loolu tax ba tey yonente ba dolli ci ne man sarrahu an yasta an yastajiba allahu lahu inda alshadaid wal wal kurab fal yuksiri duaa fi raxa e waay kenn ci yéen su bëggee heure bu nekkee ci jafe-jafe ak i tiis yàlla wuyu ko jamono bi jafe-jafe amul tiis amul nay toroxlu ci kanamu yàlla di ko ñaan yiwu àdduna yiwu àllaaxira di ko ñaan yàlla subhanahu wa taala musul ñu ci loolee mbokk wax jooju yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nañ dellu ci téere borom bi gis sa ñaari misaal benn misaali ngi nii mu yonent yàlla yunus alayhi salaatu wassalaam yunus ci histoire bu gudd génn na dëkk ba ko yàlla yónni woon gàddaay ca yàlla joxe ko ndigal ñi mu gàddaay yéeg na ca gaal ga gaal gaa ngay waaj a suux ñu ne il faut ñu am ku ñu wàcce ñu loterie mu dal ci moom mu reconnaître ne kon moo def njuumte mu daal di sóobu ci biir géej gi bi mu sóoboo ci biir géej gi suñu borom mii borom géej di borom bindaafon benn balen na bu xeet wan na ko ci kanamu waa gaal gépp dem ak moom ci biir géej lan la suñu borom yàlla wax mu ne fa lawla annahu kaana min al musabbihin la labisa fi batnihi ila yawmi yub'asuun Yunus ba mu nekkee ci biir lënd mi balen ba lënd mi géej ga lënd mi guddi ga ca la woo suñu boroom laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azalimin amul ko yeyoo ñu koy jaamu ko dul yow sell ñeel na la bokkoon naa ci ñu tooñ suñu boroom yàlla subhanahu wa taala ne xettali naa ko musal ko ca tiis ba wa kazalika nun jil muminin nii nag laay musala jullit ñi waaye bi charte suñu borom nee na daa bokkoon ci ñi may sabbaal di ma wiital di ma woo avant muy dugg ci jafe-jafe bii mu dugg moo tax ba mu ca duggee yàlla subhanahu wa taala xettali ko li borom bi wit waxit ne wa kazalika nun jil muminin nga la waay yow julit bul dégg ñaan gi baax na rek laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azalimin nga gànnaa yoo ko ci jamonoy jafe-jafe déedéet balaa jafe-jafe yi ñëw foo toll del toroxlu ci sa kanamu borom bés bu nekk di ko won ne yàlla yow rek yaa man yaa sañ mënuma sañuma luy xéewal yaa ko def ci man yaa ko mën a sàmm luy lor yaa ma ko mën a fegal di ñaan yàlla fekk dara xéewagul su boobaa day bis bu mbir bi ñàngee nga woo sa borom sa borom wuyu la léegi nag ñu delluwaat ci alquran ñu dellu ci contreelu yunus alayhi salaam muy firawna kaccoor ba mbokk firawna mbëru na dem na ba ne man may yàlla kenn warul jaamu ku dul man jàkkaarloo xeetam maa alimtu lakum min ilahin xayri ay yéen waa Égypte benn yàlla ngeen am muy man suñu borom yàlla di ko seetaan muy bàkku lu ko neex nguuram nga yàggoon lool lool lool suñu borom yàlla di ko seetaan rek waaye keroog ba ko yàlla jàppee ba di ko labal ca mer rouge firawna bi mu demee ba dugg ci géej gi ba gis na vague yaa ngi jëm ci moom def na laa amantu annahu laa ilaha illa alladi amanat bihi banu israil mu ne gëm naa ne yeyoowul ñuy jaamu kenn lu dul ki bani israil doon jaamu ah mbokk wax ju mel noonu rek la yunus a waxoon waaye nañu xool moom lan la ko suñu borom yàlla tontu gannaaw ba mu waxee waxam ju jooje nga xam ne moom la wax suñ borom ne ko ha al ana wa qad asayta qablu wa kunta min al mufsidin ah firawna tey nag nga may nangoo woo ca démb yaa nekkoon di may samay ndigal nekkoon ci yàqkat yi mbokk kon mi ngi noonu imma nga nekk yunus wala nga nekk firawna ca mooy di woo yàlla jalla wa ala bi dara xewul ci xat-xat heure bu xat-xat ñëwee yàlla xeccali la wala fàtte yàlla topp àdduna jàpp ne yow yaay may sa bopp yow yaay sàmm sa bopp bu tartar ñëwee suñu borom yàlla seetaan la ngalla waay mbokk julit nañu xam ne àdduna day du ñàkk ay tolof tolof waaye nag am na ci fitna boo xam ne ñépp a ko bokk man mii di wax ak yéen ak yéen ñi may déglu julit ak yéeféer ca moo di ne mbokk li nga xam ne mooy ak dee ak la ca gannaaw dee loo dégg mu ñàng rek dee ko gën a ñàng moo tax suñu borom tuddoo ko musibatul mawt muy musibay musibay su ko defee ab julit heure boo bëggee heure booy dee di woo yàlla yàlla xëccali la ngal la waay jamono ji ngay dund dara daru la bàyyil xel la suñu borom wax suñu borom mu ne yaa ayuha alladina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat li xadin wattaqu llaha inna allaha xabirum bima taamaloon ay yéen ñi nga xam ne di ngeen gëm ragal leen yàlla ca ku nekk xalaat lan lay waajal ngir ëllëg ragal leen yàlla yàlla day ku ñàkk kumpa la ci li ngeen di def borom bi teg ca ni wala takunu kallazina nasu llaha fa ansaahum anfusahum ulaika hum alfasiqun bu leen mel mukk ne ñi nga xam ne dañoo fàtte yàlla yàlla fàtte loo leen seen bopp ñooñu day ñoom ñooy ña nga xam ne ñooy ñu génn topp ay yow mbokk jullit mi ngi noonu mbokk dee ngi ci suñu kanam kañ la naka la fan la kenn xamu ko waaye daal bu dee ne yow bokk nga ci ñi nga xam ne waxtu wu nekk bés bu nekk yaa ngi jokkoog sa boroom ci ay xéewalam jokkoog sa boroom ci yëg-yëg boo am ci ne luy lor ci moom lay jógee luy njëriñ ci moom lay jógee bis boo yëggee ci dee suñu borom yàlla subhanahu wa taala danañu xëccali la soo wàccee ci bàmmeel suñu borom xëccali la soo dajeeg moom allaxira suñu borom xëccali la mbokk loolu yal na yàlla saxal ko ci ñun mbokk bokk na ci li nga xamee ne nii wax nañ ko mooy itamit heure boo xamee ne nii yaa ngi nekk ci coono suñu benn maam day daa way mu ne kéeféer ga woon moo tax ni diine tey ji ca loolu junjoon naa leen ko démb mbokk yéeféer yu jëkk ya ñoom bu buñ masaan nekk ci jàmm seen wax yépp daañ wax yàlla naam waaye laat wal uzza manaata boole ak xërëm yu ñuy bokkaale ak seen boroom amma bu ñu masaan dem ba ci digg jafe-jafe da ngay gis ne yàlla kese lañ daan woo ca loolee yéen ñi yàgg topp waxtaan ngalaway bàyyi leen xel lan moo dugal ikrima doomi abi jëhal ci biir lislaam abi jëhal moo doon booru makka moo jiite woon xare badr ñu rey ko ca badr doomam ja noonoog lislaam ñëwoon ne xasootu uhud rey ay julit ba nga xamee ne ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw na ubbi makka mu daw génn makka dem yéeg géej ngir rëccal boppam yàlla miy jubal ku ko neex yàlla nañu yàlla jubal jubal suñu njaboot ñu dem ba ci digg géej gaal gi commencé naan jay jay di waaj a suux gaa yi jóg ñii naan yaa usa yaa laat mi ngi noonu benn góorug arab jóg na leen déet déet déet déet déet déet wax leen laa ilaha illallah laa ilaha illallah bu leen woo ku dul yàlla bu ngeen deful loolu gaal ga dee suux ikrama ne waay bisimilah yi jàmm ah ñun lii moo ñu teqaleeg muhammad muhammad daf ñu wax laa ilaha illallah ñu ne ko da ngaa dof laata ko usa ay yàlla lañu waaw bu dee ne kay ci jamonoy jafe-jafe ci géej yàlla dong man kon kay ca jiir it yàlla rek a man daa di ne ay yàlla soo mu musalee day danaa dellu makka sukk sa kanamu yonente bi tuub dugg ci diine yàlla subhanahu wa taala musal ko mu ñëw def lam diggante woon ak boroomam ca mooy daal di tuub dugg ci diine lislaam mbokk loolu ñu bàyyi ci xel bu baax waaye wax naa la sànq ne suñu benn maam woy na ne kéefër ga woon moo tax ne diine tey ji ci ay ay côté bokk ca mooy tey nit ñi dañuy jàpp ne kat ay jurit lañu naan waaye bu neexee ñu ngi naan yàlla ak sëñ diw ku ñuy ñaanal yàlla na la yàlla ak sëñ diw ku ñuy utal ak sàmm yàlla na la yàlla ak sëñ diw sàmm ku ñuy waxal bu neexee sëñ diw ah loolu mbokk moom la ñuy dégg ci nit ñi aka neexoon fa la yem waaye dañuy dem ba nekk ci biir accident ci biir accident yàlla subhanahu wa taala nga xam ne dee rek a des ñuy woo keneen ku dul yàlla wallahi ñu ngi ma ci nettali benn accident boo xam ne soriwul boori Louga waa jëkk fekke woon nee na benn soxna bopp baa nga toj waaye ma nga daanu naan yaa sëñ diw yaa sëñ diw yaa sëñ diw ba da nga xamee ne noonu la sedde mbokk loolu musiba la boo xam ne ku nekk ci ñun waxuma war nga caa jéem a mucc waaye ña la jege loo mën ci wax ñoom nga wax ci ak ñoom danaa ci fàttali la nga xam ne nii boo di mën ci tafsirul manoor benn waay buy nettali benn bato boo xam ne jógewoon na ci benn dëkk ci dëkki naar yi jëm di aji ji màkk bañ demee ba ci digg gaal ga digg géej ga bato biy waaj a suux ñu def rek comme ni Sénégal yi def kay ngay woo yaa Cheikh Abdul Qadir yaa Cheikh nangam yaa Cheikh nangam benn góorug arab jóg taxaw na yaa allah labalal bato bi ñépp na tekk di ko xool mu ne yéen a bon yii firi arab yi sax ñoo leen tane suñu borom nee na bu jafee man rek la ñuy woo bu ñu wàccee nag la ñuy doog a bokkaale yéen ngeen di bokkaale yàlla ci biir géej gis ngeen ca la nit ñëpp doog a gimbee doog a tuubaat toroxlu ñoom ñëpp ñu ànd naan ya allah ya allah ba yàlla sauvé la nga xam ne mooy seen gaal loolee kon mbokk dañ ci doon wax rek ñu bàyyi xel bu baax suñu kentaleel kattan ne jullit war nay bàyyi xel bu neexee muy woo yàlla bu naqaree muy woo yàlla bu amee dal ma ngay woo yàlla bu àndee tiit ma ngay woo yàlla mbokk heure boo demee di ñaan xamal ne am na ay teggin yoo war a àndal teggin yooyu la ca jiitu mooy nga daal di sant sa boroom julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent boobu moo la war a gënal sa bopp sa ndey sa baay ak lépp looloo tax heure booy ñaan xéewal jëkkeel ñaanal yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moo ñu xamal suñu boroom xamal ñu teggin yi ñu koy ñaanale nga sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw ba nag doog a ñaan la nga xamee ni nii moom mooy say ñaan bokk na ci luy tax yàlla nangu say ñaan mooy nga toog toroxlu won ko ne yàlla man kat sab jaam laa boo xam ne nii ko tooñ laa lii may ñaan duna dama koo yeyoo say ngëneel dong lay sàkku ak sa yërmande moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne sunu borom yàlla day dina yéeme ci heure bu jaamam toogee ne laa ilaha illa ant inni qad zalamtu nafsi faghfir li zunubi innahu laa yaghfiru zunuba illa ant mu ne ab jaam heure bu toogee taraxlu ci kanamu yàlla ay yàlla kenn yeyewul ñu koy jaamoo man mii lay ñaan nag ko tooñ laa de ca nangu naa it na yàlla maa tooñ waaye maa ngi lay ñaan rek mu ne sa boobaa suñuy borom dana ne abdi arafa annahu lahu rabban yaxfiru zunub wa yuaqib e waaye sama jaam bi day reconnaître ne am na jaam buy bari bàkkaar am na jaam buy mbugale ku mel noonu day jéggal naa ko ay bàkkaaram mbokk waxtu woow boo fa ñaani yàlla subhanahu wa taala dana nangu la nga xam ne ni moom mooy say ñaan bokk na ci it mbokk heure booy ñaan dogul ci say ñaan bul nekk di wax naan yàlla may ma nangam ak nangam su dee ne neex na la déedéet li nga jàpp ne baax na ci yow dogul rek nga ne yàlla may ma ko noonu lañu ko yonente bi alayhi salaam doon waxee mu am place yu bari yoo xam ni war nga faa tànn heure booy ñaan bokk na ca loolee la nga xamee ni nii mooy ceeru guddi bi bu desee suñu demee ba deux heures du matin jëm fajar fa ñuy gën a nangoo ñaan mooy foofu suñu yonente alayhi salaatu wasalaam nee na suñu borom yàlla day wàcc ci asamaanu benneel ey yéen jaam yi ay waay ko may ñaan ma may ko ay waay kuy xettali ko ma xettali ko kuy jéggalu ma jéggal ko ba baa fajar di jot bokk na ci loolu mbokk jamono bi ñuy nodd yàlla day ubbi buntu asamaan yi bu ñu noddee ba pare ba baa ñuy liqaam yàlla day ubbi buntu asamaan yi jamono bi ngay julli julli palaasu ñaan la la ca gën a am solo mooy ci rukkoo ba ak la nga xam ne mooy jamono ba ngay taaya fi nga sëlmale ci julli loolee ci palaasu ñaan yi la yonent bi alayhi salaam daan wax ñaan yi gën a am solo bokk na ca fi ñëpp sëlmale julli farata ak ca la nga xam ne mooy xaaju guddi bokk na ci it mbokk bisu ajjuma yàlla may na ca bis yépp di bisu ñaan waaye rawatina nag benn waxtu boo xamee ni ni moom yàlla du ca delloo julit ak ñaan ak julit ba lu mu mën a def la ëpp ci borom xam-xam yi dañ ne mi ngi nekk diggante tàkkusaan ak timis ci bisu ajjuma gannaaw ba it am na ci ay bis yu ñëw ci at mi lu may mel ni bisu arafa lu mel ne laylatul qadr ak yu demee noonu mbokk dañuy gis ne bokk na ci doomu aadama bi ngay góorgóorlu bàyyi xel loole ca xam ne it heure boo ñaanee yàlla subhanahu wa taala dana la nangul daa fekk ne yàlla moo gën a xam ay jaamam léeg-léeg yow ngay ñaan loo xam ne yàlla xamul ne ne baaxul ci yow su ko defee suñu borom yàlla xañ la loolu may la loo xamee ne nii loolee moo gën ci yow ana ñaate jeune ñoo yàgg dajaleel oto yàgga ñaan oto keroog bañ amee oto oto ba mooy seen bàmmeel wallahi benn waay nettali na ma koo xam ne 4x4 bi mu jënd 80 millions la ko jëndee bisu tabaski la ko doon inauguré di seeti ay mbokkam bis ba mu ko waree ca la faatu ca la dee ana ñaata ñooy kër kër yi di ñaan yàlla bëgg rey seen bopp ci fàccaam ndekete yoo te fàccaam moomu mooy nar a nekk posanu àjjana addunaam loolee kon mbokk jullit heure boo ñaanee ñaane yàlla mayu la rek rafetal njort ne ah lii may ñaan day mën nam daa gënul ci man xataa li gën ci lu doomu aadama yi am ci kaw suuf mbokk mbokk na ci doom waaye xoolal doom jooju tey ji am na ñoo xamee ni nii yàlla may nga leen doom te nekkate doom ji ñooy yàq seen àdduna bal doom ji ñoo leen di yóbbu sawara wallahi am naa benn góor léeg-léeg ngeen dégg ci tafsir yi may wax inspecteur Samb toog naag inspecteur Samb ak génn góor goo xam ne tey ma nga ca laaxira mu ne ma imaam ñi gën a yàq sama àdduna mooy sama taaw ak sama jarbaat góor gi am na alal ñu bëgg a foye alal ji góor gi bañ ñi piège ko yóbbu ko hôpitalu mbaaw pour wane ne daa feebar ngir am la nga xam ne mooy procuration ci kontam lu sauvé góor gi dafa gis médecin bi mu xam mu yuuxu ko médecin bi ñëw mu expliqué ko loolu moo ko musal waaye dellu ci alxuraan kii di xadir mi ngi ànd ak yonent yàlla Muusa xadir gis benn jeune rek dagg bopp bi Moussa ni ko bisimilah jàmm indi nga mbir moo xam ne mbir gënu koo ñaaw xadir na ko déet da nga xamul gis nga Moussa xale bii kaana abwaahu muminayni fa xashina an yurhiqahuma tuxyaanan wa kufra gis nga xale bii ay wayu juróom dañoo doon ay dilit ñu baax dañoo ragal ne bis boo màggee ci ñoom dana leen dugal ci ak kéeféer loolee kon mbokk yaa ngi ñaan doom guddi di ñaan doom bëccëg yàlla xañ na la ko yàlla moo xam lu tax mu xañ la ko santal yàlla jalla wa ala te fàttaliku ñu la gën fuuf amuñu woon doom bokk na ca Asiya bokk na ca Aïcha ca ñooñu bokk nañ ci sangu jigéeni waa aljanna lii kon mbokk di mbir yoo xam ni dañ cee war a bàyyi xel bu baax mbokk heure boo xamee ni nii ñaan nga yàlla fokk mu defal la ci yii benn benn yàlla mën na la may lañ koy ñaan wala mu may la lu gën lañ koy ñaan wala yàlla fanqal la ci lor bu naroon a dal sa kaw ca ñaanoo ko ko woon wala boog li gën a neex lépp doonte ne suñ caam moom àdduna moo moom la bëgg waaye suñ caam gis nga li ngay ñaan yàlla millions yeeg kër yeeg oto yeeg jongama yeeg yépp yàlla dégg na ko de lum la ci joxul rek xamal ne mi ngi lay xaar àllaaxira yawmal qiyaama soo ñëwee nag buñ la fayee say fay yàlla ubbil la ay xéewal yu bari nga naa yàlla lii day liggéeyu ma ko woon mu ne waaw mooy ñaan ya nga ma doon ñaan ci àdduna ma bañoon la ko may mu yàqal la sa diini ay payam mi ngi nii tey mbokk kii mooy suñu borom bu baax bi suñu borom yërmaande bi suñu borom njéggal bi ngal la way nañ koy woo fu ñu mën a toll bu neexee nañ koy woo bu naqari nañ koy woo nañ koy yaakaar bu ñu tas suñu yaakaar ci moom lu mu dogal ci ñun nañ rafet njort ne lool rekk moo gën ci ñun lii mbokk kon keppaar gi 30 minutes yi ñu fa waroon a def jeex na incha allah ñu dem ba suba ak jàmm lu jiitu loolu it ñun ñëpp ni ñu ngi bokk ñaan mas mii nga xam ne moo waral keppaar gi yal na yàlla subhanahu wa taala teggil ñu ko ci jàmm yàlla jagleel ñu aafiya fi dunya wal axira والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين